sa baay yab ma ma Macky Diop yàlla la may jaange ana Macky Diop yàlla la may jaange kirugo nelange Macky sa baay ma ay nariro nari labu korok ma ngalange sa baay yab ma ana Macky Diop la may doomu yaayi Bamba Saar yàlla la may waajaage keroog góor ña lange sabayama nariiro ah. nariir la bu korok bo yàlla nge sabayama wol ma joob siise yàlla la may korsange ma joob siise yàlla may waa jànge mu yaay Bamba yàlla waa jànge doomu yaayu Maki yàlla waa jànge bilaay xiru góor ñalaak ngee jóg nari labu konak góor ñala ngee sabaayama mbay yeri ngoore samaam ma faali kumba ndaama yi sama jëriñ gone ak maalo ba samba kuli i ndaal samaam samaam samaam samaam euh, Macky Diop nga ñëw def teewaay bu rafet ci ki nga xamante ne nii mooy Bamba Sarr nga ànd ak bu rafet ñëw tey def teewaay bu rafet bii nii nan nga ñëwee tey ci bésu làmb ji nii nga xamante ne nii mooy Bamba Sarr ñu yëkkati cër bu ngand cër boo am doole joxoo ko nan nga ko ñëwalee. waaw di sant ñëpp di gërëm ñëpp di. remercier tam tëgg làmb bi Kandji nekk doomi ndeyu Bamba Sarr xaritam di remercier tam délégation bu ñu àndal ñëpp ñu ngi leen di gërëm ñu ngi leen di sant di gis na tey teewaay na ñëw teew a représenté Cheikh Ahmadou Bamba Sarr dafa am beneen mission bu muy dox moo tax tey ñun ñi nekk ay xaritam nekk ay doomi ndeyam mu ne ñu nañ ñëw assisteel ko parce que bés bi da koo fonk bés bi da koo respecté moo tax tey man ma jógee fa Fatick ñi nekk Dakar ñi nekk ñëpp ñu ñëw ñu ànd vraiment te buñ fi ñëwee fekk nañ bés bi neex na lool taaru na macha allah sant nañ gërëm nañ bu a baax waaw jërë ñëw. waaw euh, Macky Diop Bamba Sarr yëg-yëg bi mu am ci yéen ak fi mu leen teg ak bëgg gi leen bëgg ba tax mu jël lii nga xamante ne nii moom lañ ko jox cëralee ko ko muy bés bu rëy mu yëkkati ko jox leen ko ne leen demal leen ma ak confiance boobu noonu ak mbégte boobu noonu nan ko ko gisee. kooku politique boolewuñu dañoo nekk ay ndaw di ànd moom màgg fekk ñu ci politique nga xam ne ñu moom ay doomi ndey lañ daa mel ne ñoo bokk ndey ak baay. donc moom tam moo tax lépp lu mu soxla te ñun nañ ko ko taxawal mu nekk tam ñit koo xam ne tey lépp lu muy def Fatick la yaakaar Fatick la koy jëme lépp lu muy def waa Fatick pare woon nañ tey jii ñëpp ne dañuy ñëw ñoo xam ne rek ñëpp mënu ñoo ñëw ñëw mais lii tey buñ ko tëggoon Fatick tey ñu xam kan mooy Bamba Sarr te ñun waa Fatick xam nañ ko mu nekk ndaw nekk jeune gëmul ko dul président Macky Sall lépp comme président Macky Sall la nekk loo xam ne jàpp ñu campagne locale yi ñu jóge yaakaar naa ne participation bu mu ci def bu dul woon moom tey de du ma ne bu dul woon moom duñ gañ waaye bu dul woon moom tey mu ñaaw lépp lu ma am bokk na ko waa fari mu ngi si sport mu ngi si Bamba Sarr lépp loo xalaat ci jàppale doomi aadama mu ngi si vraiment mu nekk nit koo xam ne tam moo tax ñun ñu jóg sol suñu dàll ñëw ànd at moom parce que bu doon tey dañ koo jox muy tëj portable am Bamba boo ko ooyee na ko ordonnance du la dimbale Bamba boo ko ooyee nag ko leneen kon ñun duñu ànd ak moom te vraiment mu nekk nit koo xam ne lii may wax tey bu doon lamb bi Fatick la tey ngeen di door a xam ki yëpp Bamba Sarr vraiment nit ku baax la daal di remercier tam ministre am bu baax a baax parce que am na si moom confiance te bés bii jël na ko delloo ko ko muy Pape Amadou Ndiaye nekk ministre de l'artisanat nekk tam nit ku baax donc vraiment ñu ngi sant ñëpp ñu ngi gërëm ñëpp wa salaam. jërëjëf si. ay kala yoon ni nga àndaale. yàlla na te yàgg fi waaye dama loo xam ne bu doxee diggante nit keeg nit ki dama seq ak samay rakk làmb ak samay doom ak samay jarbaat te loo xam-xam ngóor ngóor gën laa xam boppam sama rakk dafa taxaw muy Ibrahima Ndiaye Sala ñu bokk bàyyi damay wax toujours ne deret du fen boroom a koy wor kenn du niru bokki jàmbur ku ne say bokk ngay niru looloo tax drapeau bu mag bi damay bàyyi présentation bi ak sama rak Alaaji Ibrahima Ndiaye mu présenté ñaari mbëri waaye bala moo présenté ñaari mbëri doomu aadama yu yiw yi doomu aadama yu baax yi doomu aadama yu mën a def lu baax lii damay jox Ibrahima Ndiaye Sall bi waaye xamal rek la ne la sa turandoo nii toog di Ibrahima di promoteur bu mag boo xam ne incha allah mi ngi waajal le 22 bu neexee yàlla Ibrahima Ndiaye Sall bi ga. jërëjëf. allo allo. jërëjëf ñoxo ñi ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di kontaan. Sambay Juumo ñi ngi lay félicité li ñu naan loo jële ci ci gétt gi da koy delloo ci gétt gi te da ngaa tibb ci beñ bi delloo ci beñ bi ndax boo dee ndaw ngay promoteur di xale ku xool lii tey xam ni benn sponsor moo fi nekk muy Go Parfum góor gi mii góor gi Diop di xale ngeen di ay xale mu ñëw ni dama lay jàppale ci làmb loolu dafa rafet mais nga jël drapeau bi ñii taxaw tey. nga tuddee ko Bamba Sarr muy daaju euh, ministre ministère. de l' artisanat de mu yónni mu yónni nag. délégation bu mat ndaw. Macky Diop ñu tuddee ko président Macky Sall. Ousmane Ndour Ousmane Ndour. Ibrahima Cissé Ibrahima Cissé. ànd buur géwél ñaa ànd ak nga xam moom mooy jibilaay jibilaay nag damay taxaw ci moom. kooku dañoo am contentieux man ak moom ndax dañoo waroon ànd Amérique mu jël visa am génn ma ne ko sa visa sama visa génnagul waroo dem ba ba <laughs> waaye muy nit ku baax. ànd ak ñoom Ibrahima Cissé ànd ak Ismaïla Anne Mamadou Diouf Cissé buur géwél li ma defoon France la ma ma la ma jibi def waaye ñoxo ak yow ci délégation bi nga bokk ak man tam bi laa bokk ndax samay xarit lañu sonni sama soppe lañu en tout cas ñi ngi leen félicité di wax ni daal ñaari mbër yi a ngi bëre drapeau jàmbaar yéen a ngi bëre drapeau gor yéen a ngi bëre drapeau koo xam ne ndaw la comme yéen yéen a ngi bëre drapeau koo xam ne ku am jom la ngeen ko bëre ci jom ci fulla ci ngor que le meilleur gagne mbokk yi arbitre baa ngi wax ak Papa Laye Georges Douce école de lutte Papa Laye école de lutte Boy Papa Laye moo nge moo nge bul xonk li Georges Douce moo xajam tent bopp bi ñoo ngay demee ngat saako yi fekkiwul kenn Zoss Bruce Papa Laye eh, Papa Laye nag ne la waa Touba ci digg géew bi waaw mais Papa Laye mi ñax laf na de Papa Laye Zoss ñoo ngay lewaatoo Papa Laye Zoss Bruce eh, ñi faw ñu jure ni ko lebuy di waxee dañu faw ñu jure man ak yow waaye Papa Laye ak Zoss Bruce dinañu jure tey ñàkk jure sa erreur la Zozu Buus Papa Laye Papa Laye Zozu Buus eh Papa cokkaas na ko léegi Papa Laye cokkaas na léegi Zozu Buus Zozu Buus daa bëgg Papa Laye taxaw dëggal boppam ñu jëflante ñoom ñaar Zozu Buus Papa

nga jot. George Bush Papa Laye faw ñu ñoom ñaar George Bush Papa Laye maa tax ngeen lekk yéen ñëpp maa tax ngeen lekk <laughs> eh George mbëri tey dañuy juree. lépp boo xañee da ngay juree. waaye ñu ngi lay juree. Thank you. Zoss bu Mbuus Papa Laye Zoss bu Mbuus eh jël na tànk Zoss eh, a ngi xeex jëlaat na ko daan wala lu mu koy daan na ko Papa Laye daan na Zoss bu Mbuus Papa oh! a ngi juum Zoss a ngi juum waaw sant yàlla rek julli sëy naam xam ne sant samay ñaari waajur baax di gërëm di gërëm di gërëm di gërëm Sam moom a njëkk a bëri loo spécial Sam maa ngi koy gërëm bu baax a baax di sant ñëpp di gërëm ñëpp di gërëm sama gaay yi maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp